سلم دائما أبدا على الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صلي وصلي وطرا لما كتب القمر المشق إن لها في قلبي نسبة مبرورة القاسم أولى صلي وصلي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 سبحانك بهتان وصلوا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سام الدهر طيما واستجرت به إلا وددت جوانا منه لم يقامي دارين من يليه إلا استلمت الندى في الخير منطلبي مولاي صلى يا راحت وصبات باللمس راحت وأطلقت على بال من رفقة لنا مولاي صلى سنة شهداء دعوته حتى أتت وتون في آخر الدهر مولاي صلي وسلم دائما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

وذكرا مولاي صل وسلم ضيق المسك زكية من طيب يا أرجو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 مقتدرا مع السلام كما قد مر من عدد حبيبك الخير الخلق كلهم وعندما حياة الأشجار بالوعي جمع العبب كذا والسعر والصفيان أرياس والوامر مولاي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

لي نازلة لطفا جميلا أني أواد حصير بالبسط المجتبى خير الأنام تمالت وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحال

bi فصل أن يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار بالقدم يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار بالقدم fatiha salaat al fatiha dugal ci yéene yëpp yal na yàlla bokk nu nangul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam يا إلهي اجزيا أبدا عن محمدنا المختار ولا أشجار قد عالم سمي العام على البضع والرايا وصليا يا إله الله

Seydi Hadji Malick jàmbaar ji waay billahi sanna bugi sindaha ata xuru ngay mel ni weer ci biir nimmam ku gumba sax garab sa leer gi yàlla tas ci bépp gox. Ah. waaye xanaa de amoon soppe maam Cheikh Alhaji Malick génn góor. ah. maam Maodo. sa ndëpp mooy sax janoog salaat gi yàlla tas ci bépp gox eh, ana association soppe Seydi El Hadji Malick kuy marcha ambillah yàlla nga am boutique ci barke Maam Maodo mi

degaay bu sax eh. li ñuy wax ci Maodo du lu muy xam nga ni Maodo kaamil bi la daan naafila chaque jour min daal di ca lay commencé هي عيساس مسجد دنرك جلاب كاب هي دم بطلق جلالاس سلمل من الله أكبر فجر mu dem ca jàkka ja julli fajar wasifa ñu lal dursi yi muy jàngale kooku mooy sunu sëriñ maam Maodo ku ko soppi yekkatil sama xam ni doo dal waaye xanaa fi amul soppi maam Sawul Xaaju Malik cëy Maodo moom la la tuddee tabaarakallaahu ku saw ko maam sa sëriñ Haaji Maalik rek ak yëpp yàlla Muhammad kaay nga dalal ñu mi ndax li wax neex na lool macha allah na ngeen ñu teral ko ngir leen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa leen ñu teral ko leen ndax li wax neex na lool macha allah am na yàlla waaye ngir bëggul ngir la mu xam ni ruudu nit yéex day fanax Seydi El Hadji Malick Seydi El Hadji Malick addiye mawɗo bay mawɗo yaari sunu njiit mamma bay mawɗo yaari sunu njiit mamma bawafinum mbuta futiit ɗo deñ mukku jinu niit ɗo jukki ñun soɓak maa soɓak Baye Maodo Baye Maodo yaay sunu yaay sunu ba fi nu mu def mu tiim daa dañ ma ko dinu nii doo jukki ñun sunu ak maax doo jukki ñun sunu ak maax mam Maodo mam Maodo wajadun umarul um fuuti wax na bu wér wax na bu wér ne Maodo yi danoom ne Maodo yi danoom ak daadaaru maa ko sosan الله لا كدين فيه كان أسيرا كنتني منال بنمان يا يا يا أي مولود أي مولود يا تنجندنا ريو ما عجيبك جنة فتح شرقا وغربا علماء يا فلتزم سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك لك النظار عيد الدردينا دون نيران إن كنت ترى شيئا غير ذاك وخل wa sunnatul mustafa man Maodo moom donc mooy ki ko xëñ fii min duuni shakkin wa rabbil arshi yaa ko jëmmal tariqatul qut mawlaana bi kan tajarat fi kulli qutrin min al aqtaar yaa ko saxal aamatum bi siyaasatin بينده وصلوا للعلي مصطلقان المصل ختم الولاية مكتوب سرايا نحن رسول كان سيدي أحمد التجاري سيدنا ولمانا كفيك ما بقى مما نبصر يا بلا مازال

فتبت

بنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت صالي نار جدال جدال وليل جدال جدال وحولي رجال على مثل حالي خطأت لعمري بساعة عمري بزيد وعمري وقيل وقالي شبابي يفير شبابي يفر وشيبي يكور وشيبي يكور وما إن تمور منون ببالي فيا ذا الجلال يا ذا الجلال ويا ذا الجمال جمالي ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني فكن عند ظني ولا تسلمني مني ولا تخذلني مني بسوء فعالي فأنت رجاء أنت رجاء ومن الدعاء من الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأزكى صلاة وأزكى صلاة على ذي صلاة على ذي صلاة شفيع الأساة وصحب وآل وآلي أيا ذا الجلال الله ويا ذا الجمال الله ويا ذا المعالي عليك اتكالي تكن عند ظني ولا تسلمني ولا تظلمني بسوء فعالي فأنت رجاء ومن الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأنك صلاة على بسملاتي شريع عصاتي وصحب وآلي حل طيبة لا تؤم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه سواها فعساك أن تحظى برؤية طه دار الحبيب yàlla wax yàlla yàlla na dee Ousmane Sango yàlla الخطا رفعت الامور لبار النصب فقل يا الهي ويا خالقي ويا خالق الخلق يا رازق عليم بمن يعصي او يتقي وموجدنا بعد سبق العليم maliki yawmi diin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraat almustaqiim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 naasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yi fi daje yépp di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal xaq sëñ Abdourahmane nga baal ma dama bëggoon ñi nga xam ni dama leen war a nuyu ci sama làmmiñ bu ma mënoon xam seen tur benn par benn ñi ngeen bëgg ma nuyu leen bu ko defee ñu dugalaale ñu ci des yaakaar naa loolu war naa mën a nekk. naa nekk incha allah. waaw. ñett ñett ñett rek dina war a doy ndax suñu sëriñ Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour sama sëriñ moo daan wax naan am sa ñëpp liñ leen dafay nuru cat daan na ko wax mu ni am sa ñëpp lim leen dafay nuru cat kon nag bu fekkoon ni am na ñett wala ñeent yoo xam ne Abdourahmane bëgg nga ma jaar seen tur ak seen sant nga wax ma ko bu ko defee ñu ñooñu dugalaale ñi ci des ñu ngi nuyu Serigne Alxasan Gueye bi nga xam ni Abdourahmane nee na mooy seen mag ñoo ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox cëram hmm? di nuyu itam sëriñ As ñaan moom itam di ko ziyaara di ko jox cëram di nuyu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye moom di ko ziyaara di ko jox cëram di nuyu itam ki ki nga xam ni mooy vice président bi di soxna Nene Si ak soxna Nene Ba sëñ Abdourahmane wax na ma ñi may nuyu fa tabaarakallaahu waaye sëñ Abdourahmane yow itam ñu ngi lay nuyu yow mi nga xam ni yow yaay njiitu mbooloo mi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di jox sa cër mbooloo mi bi mu sosoo di nuyu Cheikh Seydil Hadj Malick Gueye moom itam mi nga xam ni moom mooy jokkale mbooloo mi ak ñëpp fa tabaarakallahu ak Serigne Pape Cissé moom itam ñoo ngi koy nuyu si Abdourahmane nee na daf leen a xawoon fàtte Cheikh Abdourahmane ñu ngi lay nuyu bu baax bi yàlla dogalee mbooloo mii ñu sas ko yow lañ ko wax ñu ni dañoo bëggoon nga nekk seen njiit nga nekk Chine dal di may woo wax ma ko ma ni la yaakaar dafa foor jëlem nga jël ko ba ngeen ku njëkkee def yàlla dogal nga wax ma ko maanaam mbooloo mi bañ ba ñu bëggee sama teewaay ci yow lañu jaar xam sama diggante ak yow ma ne la Abdourahmane yow de loo ma ñaan dinaa la ko may ci kàttanu yàlla sama jóg bariwul Dakar samay tànk bariwul fa du la laa la wax barab bii ma toog di wax yàlla xam na ni ku ma laajoon ku ma ni woon nu mu tudd du ma laa ko wax kon fii xaw ma ko fii nu mu tudd sant sant ah centenaire waaw moom la tudd kon moo lay xamal ni kon yéen a tax ma ñëw fi Tiwaawan laa jóge ñëw fii ci barab bii bu ma fi jógee damay dellu Tiwaawan kon moo lay xamal ni kon yow Abdourahmane ngir yàlla ak sa pas-pas ak sa ngëm ak sa bañ a jaxase Tiwaawan ak dara ak sa bëgg Seydil Hadji Malick ma sukkandiku ci loolu ñu sàkk ko ci yow nga wax ma ko man ni la may naa leen ko dinaa ñëw première ba ma ñëw yàlla dogal yeneen ñaar yi fi jaar doomu aadama day am ngànt ma am ngànt ren ngeen defaat ko fa tabaarakallaahu aw ma ngànt ma ñëw yaakaar naa ni Abdourahmane bi ma agsee rek yaakaar naa ne doyoon na nag ni asalaamaaleykum rek loolu li nga ma waxoon yaa ma ni woon boo ñëwee neel asalaamaaleykum ñaan ñibbi kon nee naa asalaamaaleykum ma ñibbi ah déet wax gaawal gaaw kon Abdourahmane ñu ngi lay nuyu bu baax di nuy ñu ngi ko seqal muy mbooloo mu am solo mbooloo mu takku. am na lu ma xam ci ñoom ci pas-pas ak ngëm ak nangoo liggéey kon buñ ma ñaanee lii surtout ñu nekk ci burdu gàmm gi jub si xat-xati gàmm ma génn Tiwaawan kon loolu kan ko defal jaral na la ko kon sëñ Abdourahmane yow ak ñi ko seqal ñu ngi leen di sargal di leen nuyu di leen ziyaara di sàkku seen ñaan di nuyu sama ñaari sama ñaari jaam di nuyu sama ñaari jaam man maay seen sang ñoo toog nii sama gannaaw bi ma ñëwee ku ne gis na ni ma leen nuyoo ndax ñii bu ñu naawee ma naaw bu ma naawee ñu naaw samay doom doomi bàjjan lañu may seen doomi nijaay te ñu nangu ko muy sëriñ alxaaji baas ak sëriñ alxasan baas ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di jox seen cër ñu kawe ngeen ci ñun ñu màgg ngeen ci ñun seen waajur wu jigéen xamul woon ku dul ñam la Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour yéen itam xamu leen ku dul seen nijaay Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour kon fu ñu leen fekk yéen dañu leen di màggal dañu leen di yaatal dañu leen di kaweel kon sëñ alxaaji ñu ngi lay nuyu sëñ alxasan ñu ngi leen <coughs> di nuyu suñu rakk suñu wëllëre sëriñ Sidi Mbaye Sidi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di jox nuyoo nga jotalal ñu ko suñu baay bu tedd ba alxaaji daaw góor sunu soppe la suñu wëllëre la suñu lépp la ñu ngi lay nuyu bu baax njaboot gi ñu am kóllëre lañu ci nii ñuy def at mu nekk ñu woo la nga bégal leen yàlla ngeen yàlla na nga leen yàgg bégal yàlla bu sa baat dee loo wax yàlla na saf ñëpp nee nañu woykat boo koy ñaanal loolu la nga ko war a ñaanal nga ne ko yàlla bu sa baat dee loo wax yàlla na saf ñëpp woykat kat baat bu dee baaxu ca ah woykat baat bu dee baaxu ca kon nag wax ji du yàgg kilifa gu tedd gii ci suñu wet nga xam ni moo fi teewal suñu baay bu tedd ba Cerno Madani Si Cerno Madani Tall di Seydi Aboubacar Si ab Aboubacar ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa cër di jël nuyoo bi teg ko ci sa loxo nga jotalal ñu ko suñu bàyyi suñu sëriñ suñu lépp Cerno Madani Taal bu suñu maam bi tedd ja yal yàlla yokk leeram sëriñ Cerno Muntaqa Taha ñu di ko yéegal ba ci sëriñu Seydil Haaji Malik di Cheikh Omarul Fuutiyu Taal du yàgg nag jataay bi yàgg na jamono xat na te nitu ndakaaru moom amuñu jot koo ci guddeel rek jéppi na ndax dañoo war a xëy suba liggéey yi kon duñ leen fi téye waaye lu wax ji gàtt gàtt daal ma ni lu wax ni gàtt-gàtt yéen mbooloo mi ngeen xam ni ki tax yàlla bind lépp ci weer wii la juddu wala déet ma ni ki tax yàlla bind lépp ci weer wii la juddu kooku kan la wax leen koy waxal seen bopp de ma ni ki tax yàlla bind lépp ñépp kooku ci weer wii la juddu mooy kan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga dama leen di laaj yéen mbooloo mi ci wàllu yaram ñun kan mooy sunu maam damaa laaj de ñun doom aadama ñun nit ñi lax ñun nit nit nit ñun nit ci wàllu yaram yaram jëmm kan mooy sunu maam aadama du mooy suñu maam aadama amul ndey amul baay wala de aadama amul ndey amul baay yàlla da koo bind ca kattanam wala ñu ne loxoom yu tedd ya yàlla moo tabaxal boppam aadama man yàlla moo tabaxal boppam aadama wa saafaati safan fa zaajiraati zajran fa taaliyaati dikran inna ilahakum la waaxid rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma wa rabbul mashaariq inna zayyana alsamaa dunya bi ziinati alkawaakib wa xifdan min kulli sheytaan marid laa yasmacuuna ila almalai al acla wa yuqdafuuna min kulli janibin duxuura wa lahum cadaabun waasib illa man xatifa alxatfata fa atbacahu shihaabun saaqib fastaftihim ahum ashaddu xalqan am man xalaqnaa innaa xalaqnaahum min tiinin laazibin innaa xalaqnaahum min tiinin laazibin xam nga loolu mooy lan yàlla moo mën a siim man yàlla moo mën a siim jigéen yi dañuy siim cere yàllaa leen ndax siim ñun yàlla dañoo siim xam nga siim mooy lan jël suuf bu xonq bu weex bu ñuul pour continent teg jël ndox sotti ka jaxasi tabax bopp bopp gë bët yéen nopp bakkan gémmiñ tuñ lex sikkim baat doq loxo tànk biir dënn aadama ngoo ngoo ñun ba ñu gënee nekk xale ni ñu waxee nit dañ daan wax tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ gannaaw biir mbagg bopp nit a nga nit a nga yàlla bind aadama aadama di nelaw aadama wéet di nelaw bi muy nelawee yàlla rocci faaru càmmoñam bind ci Hawa ñu durante ñoom ñaar ba jur ñu ñun ñii yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa du loolu leer na ñun suñu bàyyi mooy aadama sunu ndey mooy xawaa kon ci wàllu jëmm jëmm bokk ba wewutaan aadama mooy suñu maam kon aadama mooy maamu Seydina Muhammad ndax bu dee ci Seydina Muhammad am na ndey ak baay wala Seydina Muhammad nit la am na ndey am na baay kan mooy ndey kan mooy baayam Abdullahi kan mooy ndeyam Amina kon nit la comme ñun kon aadama mooy maamu Muhammad ci yaram aadama mooy suñu maam ñun ci yaram waaye ñu bari xamuñu ni muhammad mooy suñu maam ci ruux sew sew ngoog de aadam abul ajsam muhammad abul arwaax aadam abul ajsam muhammad abul arwaax aadama mooy maamu mooy suñu maam ci ci yaram waaye muhammad mooy suñu maam ci ruux ci nan si Hadj Malick moo bari xam-xam ma ni si Hadj Malick moo bari xam-xam demal te laqad haajaba lu mu wax fa kayfa yatibu l umru in dumtu haahuna wa hanna alladi lawlaahu daa sabilu wa hanna alladi فالله يعطي لنا المنى فلولاه حقا لا يكون فتيل وهل الذي نور الوجود متلسم به في حجاب الجسم فهو وكيل وحاز اصطفاء قبل نشأة آدم وما الله أغلاق الأنام يزيل متكة فما زال منقولا من أصلاب طهر إلى الطيبات الرحم نعم أصول sama maam sama turandoo moo ko wax Seydil Hadji Malick ay ca وهب الذي لولاه ضاع سبيل سبب سيد الحاج مالنا وهب الذي فالله يعطي لنا المنى فالله يعطي لنا المنى فلولا حقا لا يكون فتيل وهل الذي وهل الذي نور الوجود نور الوجود مبلسم به به بحجاب الجسم بحجاب الجسم فهو وكيل خارج توقعت ما توقع du yàgg du yàgg damay bañ damay bañ a xaabaabal te guddi na Seydi Hadji Malick nee na fa kayfa yatiibu fa kayfa yatiibu naka lay neexe al umru sama dund in duntu ndéem sax naa man Seydil Hadji Malick haahuna fii ci senegaal fii ci Tiwaawan waxaan naa te nekk fële ca Medina alladi ka nga xam ni ah fa kay fa yatibul umru indumtu haawu naa waxaan naa te nekk fële ca Medina alladi ka nga xam ni law laahu bu dul kontek moom daa a sànku a sabilu yoon wa te mooy Seydina Muhammad waxaan naa te nekk fële ca Medina fa kay fa yatibul umru indumtu haahuna wa hanna te nekk fële ca Medina alladi ka nga xam ni ah falaw laahu bu dul konteeg moom xaqal ci dëgg dëgg dëgg laa yetu laa yekunu du am kaana jooju kaana yi taam la bokkul bokkul ak kaana yi naaqis kaana yi taam faa'il lay am kaanay naaqis day fekk mubtada ak xabar ñoom ñaar ñëpp ñu rafaa kaanay kaanay naaqis bu ca duggee dafay rafaa mubtada ma tudde ko lisimam nasab xabar ja tudde ko xabaram kaana am na mooy kaanay taam kaanay nekk kaana nekk na mooy kaanay naaqis kaana jii nag moom faa'il rek lay am falaw laahu budul kontek moom xaqan ci dëgg mu ni laa yakunu du am fatiilu dara dara dara dara dara te mooy Seydina Muhammad Seydi Hadji Malick nee na sama dund nan lay neexe ma nekk Sénégal wala ma nekk Tivaouane te nekk ca Madina ka nga xam ni bu dul koon teg moom yàlla du bind dara dara dara dara dara dara waxal naa fa kayfa yatiibu naka lay neexe al sama dund in dumtu haahuna waxal naa te nekk fële ca Madina alladi ka nga xam ni nuurul wujuudi leeru mbindéef yi mu tal samun ku ñu ku ñu mu tal samun lu ñu lu ñu ndëxëñ la lu ñu dugal la bihi ci moom fii xijaabil jismi mi ah, ci kiiraayu yaramam fa huwa moom wakiilu mooy ki ñu waralul ajjana naka la sama dund di neexee ma nekk Sénégal Seydina Muhammad nekk Madina Seydina Muhammad mi nga xam ni tey leeru mbindéef yi ah leeru mbindéef yi dañ ko ndëxëñ ci biiram waxaada làq na moom muhammad istifaan ak tànn qabla nachati aadamin la jëkk yàlla di bind aadama tawamallaahu déet yàlla yusiiru di dindi axlaaqal anaami ngombal mi ngombal mbindéef yi seyduna muhammad seydil xaj may muhammad yàlla tànn na ko laataa yàlla di bind aadama li tax ma ne leen léegi muhammad mooy abul arwaax lan la wax moom muhammad dafa wax ni sayyiduna muhammad nee na inna allaha taala xalaqa nuuri qabla an yaxluqa aadama bi arbaata achara aaman yusabbixu dalika nuur wa tusabbixu almalaikatu bi tasbixihi dégg nga loolu de inna allaha taala xalaqa nuuri qabla an yaxluqa aadama bi arbaata achara aaman yusabbihu dalika nuur wa tusabbihu almalaikatu bi tasbihihi seydina muhammad nee na man muhammad yàlla bind na yàlla bind na sama leer ba mu am fukki junniy at ak ñeent yàlla soog a bind aadama Seydina Muhammad nee na man Muhammad yàlla bind na sama leer ba mu am fukki junni ak ñeent yàlla soog a bind aadama nee na leer ga ba mu ko bindee leer ga dafa doon sabbal dafa doon sabbal yàlla ci biir sabbal gi muy sabbal yàlla malaaka yi ci la ñuy soog a xam ni ndekete baat bii lañu war a wax muy sabbal yàlla ñoom itam ñu sukkandiku ci sabbaluk leer ga ñoom malaayka yi ñuy sabbal yàlla kon Muhammad moo leen xamal luy sabba xam nga malaaka yi ba ñu ne wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni alamu ma la taalamun dégg ngeen wax bi ma ni Seydina Muhammad nee na yàlla bind na sama leer fukki junniy at ak ñeent yàlla soog bind aadama Seydina Muhammad nee na leer googu ba ko yàlla bindee daf doon sàbbaal yàlla ci biir sàbbaal gi muy sàbbaal yàlla ci la malaayka yi soog a xamee ni ndekete ñoom lii lañu war a wax ñoom itam ñu sukkandiku ci sàbbal gi sayyidina muhammad leeram di sàbbal yàlla ñuy sàbbal yàlla moo waral fële ñu wax ni wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun xalifatan qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika ndekete ñoom li ñu leen xamal ni lii lañu war a wax muy sàbbal googu ndekete ñoo ko jële ci ba yàlla bindee leeru muhammad ba leer ga di sàbbal te yàlla bindagul jëm ja malaaka yi ci lañu sukkandiku ba xam ni ñoom itam ndekete sabal gi la ñu war a sàbbal waaye ñu ngi ko jëlee ca sàbbalu leeru Seydina Muhammad est-ce que kon kii seen moroom la ah est-ce que seen moroom la la bindee leeru Muhammad ma ni ba yàlla bindee leeru Seydina Muhammad ba mu waree nekk nit Seydil Hadji Malick nii Sidi foofa nag foofa nag laa soxla woon fa ma zaala manqulan min aslaabi tuharin ila tayibaati rihmi niama usulu laalal ma foofu fa ma zaala manqulan من أسلاب الطهر إلا طيبات الرحم النعم أصولا boobu di sopp naa ko ci nag eh waay ana kan moo gën a bëgg maam Seydi Hadji Malick nee na Seydina Muhammad fama zaala manqulan من أصلها بالقهر إلا طيبات الرحم النعم قصورا سممنا فمها خمنا سيدي لير غلاون mais xanaa du nekk toujours leer xanaa dina dem ba jëmbi jamono nag mu nekk nit nag te pour mu nekk nit pour mu nekk nit dafa war a am ndey am baay ami maam wala nit dama leen fex Seydina Muhammad la wala lan la laaj naa leen ma ni nit la wala lan la xam nga loolu loolu leer la woon moo ko wax ci xadis mu ni inna allaha taala xalaqa nuur yi qabla an yaxluqa aadama bi arbaata achara aaman yusabbixu dalika nuur wa tusabbixu almalaikatu bi tasbixihi xam nga loolu moom leer na moo ko wax yàlla bind na sama leer fukki junni at ak ñeent yàlla soog a bind aadama leer ga di sàbbaal malaaka yi sukkandiku ci sàbbaaluk leer ga bay sàbbaal moo tax ñu ni wa nahnu nusabbihu bi hamdika te xamuñu ni sàbbaalu leeru Seydina Muhammad ñoom moo leen xamal ni ñoom dañoo war a sàbbaal kooku du seen morom mais kon nag bu ñu demee ba jëmi jamono mu war a nekk nag comme ñun ansiidi war a nekk nit bu waree nekk nit fu muy jaar si ay Malik ga bari xam-xam xam nga si ay Malik si ay Malik dafa dóor leer ga dóor nite ga dafa ni waxaasa istifaan qabla nachati aadamin wa ma llahu axlaaqa al anaami yuziilu seenay ne na Muhammad yàlla da koo tànn laataa yàlla di bind aadama ngombal nit ñi te booba yàlla di di ndéegu ko ah kooku leer ga waaye léegi mu sës ca mu sës ca ah bu waree nekk nit bu waree nekk nit war na am ndey am baay am imaam Muhammad ibnu Abdillahi ibnu Abdi ibnu Abdil Mutalib Hashim Abdou Manaf Qusay Kila Murata Kaab Luway Xaalib ba fan Adnaan waxal. waxaala. xaaral xa eh dafa ndànk ba Adnaan ba Ismaayila Ibrahima non non Ismaayila non eh, eh, non booy lim booy lim maami Muhammad doo ci boole Yaquba eh. ñaar lañu is ibrahima xalilullah moo jur isxaaqa jur ismaila wala de isxaaqa mooy isxaaqa mooy baayu yaquba ak fukki doom yi baay ya ak benn ak yuusufa mais ismaila moo demoon ardu xijaaz rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin gayri di zar'in inda baytika almuharram rabbana li yuqimu salata faj'al afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkuruna kooku ibrahima ba mu koy ñaan maamu muhammad taxoon mu ismaila ak ndeyam wala de waaw kon boo yéegee di yéeg di yéeg ah nga jógee ci adnaan nga yéeg da ngay dem ci Ismaïla dem ci Ibrahima dem ci Noox dem ci Idrissa dem ci Chiisa dem ci Adama kon léegi Sidi la lee leer ga ah mais léegi pour mu nekk nit dafa war a am ay maam ak mu ni fama zaala fama zaala manquuran bi asla بطهر إلى طيبة الريح مني موصولا léegi nag fama zala dañul moom leer ga man xuulaan di lu ñu toxal min aslaabin jóge ci ay ndiggi góor tuharin yu di way laab ila tayibaati rex ni dugg ci dugg ci raximu maanaam maanaam utérus way tedd yu jigéen ni ama baax na usulu cosaan la maanaam leer gi leer gi ba ko aadama ba ko aadama gàddoo siidi leeru Seydina Muhammad xalal nañ ko benn benn leeru Seydina Muhammad ba ko aadama gàddoo ci ndiggam dafa romb doomu aadama yépp dem directement ci ndigal siisa siisa doomu aadama la déglu leen baax li may wax <laughs> déggu ma de dama ni wolof nee na balaa nga ni naam ne fa déedéet Seydina Muhammad nee na naam te fa wolof nee na balaa nga ni naam ne fa ma ni Muhammad nee na naam te fa lamma ixtarafa aadamu alxatiata xadis la bu wér boo xam ni xaakim moo ko soloo ak bayhaqi yi ak ibnu kathir lamma ixtarafa aadamu alxatiata qaala ya rabbi asaluka bi xaqi muhammadin lama xafarta lii qaala wa kayfa arafta muhammadan qaala lamma xalaqtani bi yadika wa nafaxta fiya min ruuxika rafactu rasi fa raaytu ala qawaimi al arsh مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت إنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقت رواه الحاكم والبيهقي وابن كثير dañuy ay xuffaat lañu Aadama bi ko yàlla bindee ni ko garab yi ci àddis àjjana yëpp bu la neex lekkal waaye bii bàyyi ko fi mu lekk ko moom aadama ba mu bëggee yàlla jéggal ko dafa ni yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma lii ma def ci barke Muhammad est-ce que boobu Muhammad judd na wax leen yow yàlla yaa rabbi asaluka bi xaqi muhammadin lama xafarta lii yàlla ni ko wa kayfa arafta muhammadan qaala lama xalaq lama xalaqtani bi yadika wa nafaxta fiya min ruuxika rafaatu rasi fa raaytu ala qawaimi l arsh maktuban la ilaha illa allah muhammadu rasulullah fa qultu innaka lam tudif ila ismika illa ahaba alxalq ilayk yonent bi du moroomu kenn wallahi du moroomu kenn naa moo tax si ay mari wax ko ni ko bihi taabal ilahu ala abina ah. taaba jéggal na al ilahu yàlla ala abina ci suñu bàyyi aadama euh, euh, bii ci barke Seydina Muhammad lan la bi aadama lekkee garab ga dafa ni yow yàlla yow sama borom maa ngi lay ñaan nga baal ma lii ma def ci barke Muhammad yàlla ni ko yow noo xamee Muhammad te juddoogul mu ne ko biñ ma bindee lu ma xoolati xam couleur ba lu ma noyyeeti xam xet ga lu ma déggati xam son ba lu ma mosati xam cafka la lu ma lambati daj ko fu ma neex dem dama xool arache néeg yi néeg yéeg palanteer yéeg buntu yéeg fauteuil yéeg moquette yéeg lépp nga bind ca laa ilaha illallah bind ci suuf muhammadu rasulullah ma xam ni kon tur wii nga xam ni da koo dendaleeg sa tur wii ah, ku jaar ci moom am li mu bëgg moo tax ma jaar ci moom ma ni la baal ma jéggal ma bàkkaar bii ma def ci barke borom tur wi laa ilaha illallah mu def ci suuf muhammadu rasulullah ndax seydina muhammad turam turam bi nga xam ni moom lañ ko tuddi ci ngénteem muhammad la ida

كتبها من فاتحة عن مرمى وصلي على هي ونبينا أمام ربنا حملا محللا الغفران وتسمينا بفضله

الختان في النقيبة حواء ëmb na ëmb yu bare bare bi góor jigéen ci biir ëmb bi bu imbee góoru ëmb bii takk jigéenu ëmb bee jigéenu ëmb bee séet góoru ëmb bee booba daganoon na ci sharia ci sharia aadam eh, ndax boobu ñoom rek ñoo fi nekk booba dagganoon na takk koo dagganoon na takk koo bokkal day bay ci sharia aadama ndax boobu ñoom rek ñoo fi nekk waaye am na ci kenn koo xam ni siidi cheikh yooyu xawa ëmb na lu mat ñeent fukki ëmb kii mën naa ëmb de mais ñi ma ëmb ay cheikh la ñuy doon góor jigéen góor jigéen góor jigéen ci benn ëmb bu boobaa bu imbee góoru ëmb bii sëyëg jigéenu ëmb bee jigéenu ëmb bii sëyëg góoru ëmb bee ñu jàllale ko lépp di ay cheikh moo tax si yaay Malick kenn du moom mu leeral ñu lan moo waral ñëpp nekk ay cheikh mais sii sa nekkul cheikh mu mu leeral ñu ko ca xilaas ba li ma wax léegi moom la leeral ca xilaas ba moom si yaay Malick dafa wax ni wakkaana siisun wasiyal asli muntaqilan min xiiratin karamin lil xiiratil karami حتى انتهى بالشموس النور محتقرا لقادة العرب فهرا جلة النظم وغير شيث فما تأتيه منفردا حواو لتح تكريم نور غير مزدحم الله وكان نكون شيث شيثا دوم آدم لا وصي الأصلي di ku ñu dénk leer ga muntaxilan mbirum nekkam di aji toxu moom leer ga ah min xiiratin dégg nga ni mu ko leerale muntaxilan mbirum nekkam di aji toxu moom leer ga min xiiratin jóge ci ay tànneef karamin yu di way tedd lil xiirati jëm ci ay tànneef karamin yu di way tedd xam nga baatu karam baatu karam mufrad tasniya ak jamu um ñoo ko bokk min xiiratin karami asidi min xiiratin karami rajulun karamun imraatun karamun rajulaani karamun imraataani karamun rijaalun karamun nisaaun karamun lépp karam ngay wax mu ni wa xayru ku dul siisa fa maa tatihi juru ko xawa u xawa mun muy ken moom kenn la moom xam nga ko waral comme siisa moo war a nekk maamu Muhammad kon moom waru la buuxante ak keneen ci biiru ndeyam leer ga ba mu jógee ci aadama ci siisa la ñëw ñeneen ñëpp seex lañu siise mi nga xam ni moo war a gàddu leeru Seydina Muhammad moom kenn la war a doon ndax lan comme moo war a gàddu leeru Seydina Muhammad waru la buuxanteeg keneen ci biiru ndeyam loolu moo waral ñeneen ñi nekk cheikh moom mu nekk kenn Seydina Muhammad juddu ci weer bii muy rabiul awal yàlla wax yu ko waaw nit nit la wala de ba mu juddoo nekk liir ñu tudde ko Muhammad mu dem ba jëmmi jamono am ñeent fukki yàlla yónni ko di ko yàlla yónni nag boole ko ay nit ñu baax nii sahabatu rasul ñu ànd ak moom yàlla ni ko nag sama diggante yow ñun ñaar ñoo xam waaye bu dee wàllu ak ndoom aadama lu la jaaxal ci problème diisoo caat ñii nga àndal fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalb lan faddu min hawlika faafu anhum wastaxfir lahum wa shaawirhum fi l amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah jeex na ñen la gis nga moo tax toujours ma wax ko booy ànd seetal ña ngay àndal ma ni booy ànd ma ni seetal ña ngay àndal ndax ku ne ñoo ngi lay askanele ka nga àndal dañu ni boo bëggee xam nit jikko nit bu ko laaj yaay kan xam nga looy def laajal ka muy àndal luñ la wax ni noonu la mel rek xamal ni kooka noonu la mel anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaarani yaqtadi fa in kaana daa charrin fa jaanibuhu suratan wa in kaana daa xayrin fa qaarinuhu tahtadi xam naa ni day sopp Seydina Muhammad ah ko wàññul dara de te lii de bokk na ci seeñal coseelu Seydina Muhammad wala de lii lii ngeen def tey euh, sëñ Abdourahman ma lii ngeen def tey yàgg koo def ma bokk na ci seeñal cofeelu Seydina Muhammad gi ngeen am ci moom bëgg naa Seydina Muhammad ci ci làmmiñ ci wax ban njëriñ la fas ko ci sa ba tey waaye itam am na solo trop jëfee ko ci say cër nga génne alal def ko ci ah weeram bii Seydi Seydi Hadji Malick al ashara al basharuna bil janna loolu day la ñu laaj taxawaayu ñee cheikh daal li gën a gàtt ma tëj ñaan mooy daal lenn saxaabatu rasul daal ñëpp àjjana loolu ngeen bëggoon dégg jox na saxaabatu rasul ku àndoon ak Seydina Muhammad àjjana sa rafet na ñii daal dañ leen wax rek ni maanaam dig nañ leen àjjana al ashara al mubasharuna bil janna ah Aboubacar Ousmane Ali ah ah Saad ibn Abi Waqas Saïd ibn Zeyd euh, euh, Abdourahman ibn Awf Talha ibn Ubaydillah Abu Ubayda ibn Jarrah ah ak Zubayr ibn al Awam dëgg la waaye sahabatu rasul cent vingt quatre mille yi ñëpp àjjana alxuraan la alxuraan la siidi lii ma wax alxuraan la demal ci sóoratu xadiid aaya fukk sóoratu xadiid aaya fukk fa yàlla diggee saxaaba yëpp àjjana foofa la ne ñu bari dañ koy romb nag te duñ ko seetlu nee fan la sóoratu xadiid aaya fukk wax day yastawi minkum fa yàlla diggee àjjana saxaabatu rasul xam nga ñi dañ leen dañ leen a bégloo ci àjjana ni fukk lañu mooy ñi ma lim ah waaye yàlla fa mu diggee muy lu loqu ah saxaabatu rasul ni ñëpp ñoo nga àjjana ndax ànd gi ñu àndoon Seydina Muhammad ah euh, suuratu xadiid aaya fukk ku dem digg is ko jël lan la laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi wa qaatala ulaika acdamu darajatan min alladina anfaqu min bacdu wa qaatalu wa kullan waada allahu lxusna ku weddi ku weddi demal fa ma la wax waxal laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi wa qaatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يلا نينا يلا نينا يلا نينا كي ديبانسي alalam xeex dépensé alalam ci jamonoy xat-xat jamonoy ñàkk jamonoy nit ñi bareeguñu amoo dara la nga am yëpp yàlla jaral la ko nga dépensé sa alal te mooy lu jiitu fatxu Makka yàlla nee na ka dépensé alalam ci lu jiitu fatxu Makka jamono ju xat jamono ju naqari jamonoy ñàkk nit ñi bareeguñu ndax ñu bari tuubaguñu kooku du yam daraja wàccuwaay ki dépensé alalam mu xeex te yàlla tax gannaaw fatxu màkka kii moo ëpp yool kee kii moo ëpp daraja kee ndax li ko waral mooy jamonoy xat-xat la def lee te mooy lu jiitu fatxu màkka gannaaw fatxu màkka nag nit ñi bari mbooloo mi bari alal ji bari ah, mbir mi neex ah foofu ku fa dépensé alal mani yàqu tabaski tabaski tabaski yàqu tabaski du ngóora takkum tabaski du ngóora tabaski jot ngay ngay yekkalaate ku ne di jox yor du ngóora du yàlla ni waaye lu mën a am daal mooy catégorie bële muy saxaaba ya laataa fatxu màkka ak catégorie bële saxaaba ya gannaaw fatxu màkka yàlla nee na waxku leen ñoom ñëpp wa adallahu alxusna alxusna mooy ajana lilladina axsanul xusna loolu du ajana wa ziyaada gis yàlla naa boobu mooy ajjana yàlla nee na ñoom ñëpp ñëpp saxaabatu dig naa leen ajjana ajjana la ju jëm téere yu baree bari wax nañ ko kon loolu koy jeexal ne kon Abdourahmane pare naa ci nag sonn ah. kat maa ngi nii ma ñaqee nii ah. waaw pare naa ci nag ngeen góorgóorlu foofu lay ñaan seen mbooloo mi yal na ko yàlla gën a jëmale kanam seen mbooloo mi yal na ko yàlla gën a jëmale kanam seen mbooloo mi yal na ko yàlla gën a jëmale kanam àdduna nii rek la kenn mënu la dem te àndul sa moroom yàlla kese moo mën a toog fee ni soxlaalu ma kenn dara te ku ma soxlaa ku soxla ñëw ci man wala soxla du faju waye ku dul yàlla di nga soxlaal sa moroom te na ngay soxlaale sa morom nag mooy da di xamante xamante mooy indi soppante soppante mooy indi yërëmante yërëmante mooy indi dimbalante koo xamul mënoo koo sopp koo soppul mënoo ko yërëm koo yërëmul mënoo koo dimbali kon na ngeen jàppante bu baax Abdourahmane bu ko xeeb de mbooloo mi ko xeeb a cheikh yéen yéen may bëgg a li li li may pomp waaw te mani mani mani mani ngeen baal ma yéen mbooloo mi mani mani ah, xam nga man dafa am dafa am benn bis yéen mbooloo mi dafa am benn bis ma dem benn dëkk waaye bàyyi bàyyi lii tegal foofu rek dafa am benn bis ma dem benn dëkk ah bi ma demee ci dëkk bi xam nga man sportif laa waaw man tey rek tey tey bi ma xamee ni ci ngoon gi bi ma xamee ni ci ngoon gi ah laa laa war a ñëw fii te maanaam eh, ma xam ni maanaam eh, duma ko mën a def ci ngoon gi ci suba gi laa ko def ci bëccëg naaj mu tàng bi jaral na ma ko mais naa ko def rek man julli ni mu nekk sama farata noonu la sport nekkee sama farata xam nga lu waral lii tax nga tal sa farata farata la wax leen ma lii tax nga tal sa farata faratala la xam nga lu tax xam nga lu ma di pour sama yaram sawar ci jaamu yàlla sawar ci sama wàllu liggéey fay dem sawar ci guddi bu may jàng li tax nga tal sa farata farata la yàlla def ma dem ci dëj ba julli néew bi ba pare ñu war a dem sëkk ya fi ñu jullee néew bi ak sëkk ya daanaka jege de kilomètre sama oto ma bàyyi ko ca kaw ma ni ko xaaral ba ma wàññeeku bu ma topp ñëpp nag léegi ñoom daanaka xoolatuñu sax maanaam léegi li ñu xool mooy mam Malick yow foog nga dugg sa oto mënuloo ah jóge fii ñu jullee néew bi ba sëg laajal ci ñoo ànd keroog ma ñu leen xaaral ñëpp ñëpp laa bàyyi ca gannaaw ma ñëw taxaw ci naaj bi ma ñëw taxaw bi bi ñuy bi ma ma taxaw ci naaj bi naaj bu tàng tàng ñu indi parasol tiimali ma ko ci saasi ma jël parasol ba lem ko delloo ko borom ñu ni ma sii yow duggoo sa oto dox nga ñëw te nangu woo ñu tiimali parasol man leen xamal la bu ma dee daw wii dama bëgg tàngoor wii fàttali ma tàngoor wee te wee téeméeri junniy milliards la ci tàngaay ci wii déggu leen ma de damaa bëgg man leen yéen nit ngeen yéen a ngi ma keral yéen a ngi ma bëgg a keral jël leen seen keral xam nga man gan ker laa bëgg yow ma laa dilla illa boobu laa bëgg bu ma bu naaj bu tàng wa yàlla keral ma ca ker googee pour nag ma fàttaliku tàngoor woowee bii moom ma koy fàttali kon bàyyi leen ma ma ma dee ci naaj wi ku ne ak na la yàlla binde waaye léegi nag ma rek di ñax ngeen dëppali ma jaru ko bàyyi leen ma mos la mos ah dangeen a bëgg daal ñële ñële di dee ci tàngoor man ngeen di mu lànk naa du ko nangu bu ngeen yóbbu sama sama wiwu de ngeen baal ma de man di nii laa mel man Malick moom. kon nag ñaan a des ñu ñaan kenn ku ne fa nga nekk nga tàllal say rek si mbir ñaan yaa nañ ko fi at yu bari yaa ne ñaan yëpp waaw sëñ bi Abdourahmane Ndiaye nee na jërëjëf sant na gërëm na la sagal nga leen yenn yàlla sagal la nee na ndax lii daal moom kenn xamul lay fayee xanaa ñaan na yàlla rek guddal sa fan samay la wér tabaarakallaahu bégal nga ñëpp sagal sagal nga leen siggil seen mbiri nawle te lii nag lu jafe la jërëjëf si nee na Abdourahmane moo ko wax ci loxo yi mu ñaan waaye ne rek yéene li nga bëgg waaw waaw bu ñaanee pare ñëpp toog may ba mu génn rek ngeen soog a wàcc incha allah allahumma amin waaw ngeen xaar xéewal lii Pape Ousmane Mbaye def incha allah le 4 novembre fii اللهم امين وغير امين وزير اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين مين يا رب امين مين يا رب amiin yaa rabbal amiin raay leen yéegal sunu burdu bu ñuy def le 22 septembre fële bu ñu ko en face mosquée bi sama frère bi ñu ko def alaaji Maodo Birame Mbaye waaw